mbokki jullit yi mbokki àdduna oowewuñ leen fi dara lu dul yàlla ak yonentoom loolu kase lañ leen fi doyee ndax julit sañ na di am xéewal oo ca moromu jullitam li kase tax ñu oo waaye it jotaay yu mel nii dafa war a yaatu ci pay bi ndax buñ ne ziyaada dolleeku lay firi kenn ku ne mën nga dollee ci kër ga ne njëkk may nuyu kenn di xaasal alxalifatul akbar Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa Niass di ñaan yàlla mu yàgg fi lool ak wér ak mbooleem xalifa généraux yi nekk ci àdduna bi yëpp di ci teg kilifay koñ bi ki nga xam ni su ne ma woon na dagg mu dagg bu mu amati du amati bu ma ko gisati du ko gisati muy suma wayjur Ahmed Babacar Niass bi ma fi tuxuseeg léegi wala bi ma fi dëkkeek léegi nu raw ni mu jàppee ay njabootam la ma jàppee du séddale lenn lu sama cër ñëwul wax dëgg neex yàlla day toog sax jékki-jékki yónnee xale ne ko demal nga xoolal ba xam cheikh mu fa su ma fi nekkee mu jël teraangaam yónnee ma kon loolu boo dëkkee ci koñ am kilifa goo xam ne sa kilifay way jur la nekk taawu alaaj Babacar Niass mat taaw bu mat sëkk palaasam fa tabaarakallaa bu la defalee loolu bu jotaay bu day nii teewee seedeel ko sa kanam mbokk yépp lu wér la ndax dara ñaawul ci dëkkandoor gi ki war a def conférencier bi doomam la amaana jàpp gi ma bàyyam jàpp wala jàpp bu raw noonu nu ko raw la ma jàppee ndax ñoo bokk fañ nekk ndakaaru muy suma mag sama kilifa sama xarit imaam Hassan ibnu Ababacar moom laa war a mujjee présenté sax waaye damaa dugg ci waajuram kon faaw mu laalaale di jiital ci nuyo bi ak ci wax ji suma wayjur suma xarit suma lépp ñuy xàccandoor di dóorandoor muy Amadou ibnu Ababacar moom tamit di rakk ci Ahmad Babacar mi ñu wax léegi mi ngi toog jamono ji li waral fii xumbut wala melut nam war a mel kenn ku ci ne tasant ñes yaa nga ja toppatoo say gan kenn talul kenn loolu moo tax waaye dañ koy def rek ngir barkeeloo bés bi ngir lan site internet yi ak ñu mel noonu ñëw fi ñu xam tuuti ci maam a Abdoulaye Niass ak maam Khalifa ndax maam Alaaji mooy ngangu mag gi moo cuub ñëpp kuy dara rek moo tax lay dara kon kooku waxtaanee ko dafa jot fii ci pays bi ak fudut pays bi te yàgg nañ ko waxtaanee waaye ren la am ci kaw suuf su ko defee après ñu jox imam Assane mu leeral ci tuuti ñu dàqanteeg timis gi juri timis tasaaroo jëm a xaar tànt ba ndax yiw lum tuuti tuuti doy na lum bari bari doy na waaye di présentel sama bopp comme ni ko Cheikh Omar waxee ñu dàqanteeg waxtu wi ñi nga xam ni moom moo ko waroon a présenté mais muy benn jotaay ki nga xam ne mooy maxtaar Niass di sama wayjur mi ngi ci jotaay bi Mouhamed Niass di sama rakk mu jotaay bi euh, Abdourahmane Sakho jógee fa nga xam ne mooy Kër Soose mi ngi ci jotaay bi kilifa moom du ma ko présenté min ka ilayka la mooy man may moom moom aw ma lenn lu ma koy présenté jotaay bi parce que moom xam na man xam na mboolem délégation bi mu ànd ak mbég nañ ci lool kontaan nañ ci lool buñ la jàppee woon benn loxo donte amuñ téeméeri loxo jàppe nañ la téeméeri loxo yoo xam ne gisoo ko te téeméeri loxo yooyu ci xol lay nekk xolo koy gisit te sa xol jox na jox nga ma ko jox di jiital ci jotaay bi ci nuyoo bi Papa Ibrahim Dia ñëw na ànd ak njabootam yëpp ku lim juum ci njaboot gi Cheikh di sët ci Maam Alaaji Abdoulaye Niass ñëw na moo yoroon micro bi ki nga xam ni tabaarakallaahu mooy suñ jàmbu xeebuwul bi nga xam ni fa tabaarakallaahu ku bëgg mbokk la muy baay bi tey mi ngi ci jotaay bi ñu ngi lay gërëm di la sant waaye it Cheikh Aboubacar Niass mi ngi ci jotaay bi di sët Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi lay sant di la gërëm ñas Niass Goumba Abdalaay lii rek mooy mbokk bu mbokk ootee ñëpp ñëw ñu bokk bés bi xencu yàlla xam yàlla bëgg yàlla bu ko defee ñu dàqanteeg noddu timis gi buñ mënee julli timis julli Imam Hassan jël kàddu gi développé ci dix minutes yu gàtt bu ko defee ñu ñaan lan bu ñu ootee ñëppay teew suñ mbokki murid yi jógee ba Touba ñëw Cheikh Omar Diop Akaza nga xam ni jàng kat bu mag la day def bés bu mag di ko amal fële ca Dakar mboole mbàkke mbàkke yeeg ñu notable yeeg kilifa yi réew mi dafa daje mu tuddee woon ma ko ren ma ne ko ma ni dooma gën a gore danaa la dalal ci jotaay bi nga xam ni mooy kër maam xalifa Niass ndax Touba mooy ñeseen ñeseen mooy Tiwaawoon Tiwaawoon mooy Njaasaan Njaasaan mooy Medina ñun ñëpp wala tafarraxoo bi xablillah la ci buum gu jëm ci yàlla rek lañ jokk ngir àgg ci yàlla bunt yi nag moo wutee waaye bunt yëpp àgg ci yàlla rek la kon kenn gënul kenn ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi su ko defee kii nodd nodd ñu julli jiima dugg ci conférence bi dàqanteeg waxtu yi bu ko defee ñu may nit ñi dix minutes tasaaroo sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp boo xamul maandul yow nga na xiin te yow bu leen di tàggale wëllu yu yàlla yi ñooy gisante seen biir te teewu seen peña Cheikh Ahmad Tidiane góor yàlla la mooy seedel mbër ya Sëriñ Tuubaa nee na رضي عني سبت وتيجاني علي رضوان بدجاني سرت بانينا رضي عني سبت أبو الحسن علي رضوان يخلد حسن سرت بانينا رضي عني سبت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 wa ala alihi wa sahbihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin wa radiyallahu an jami'i khulafaihi wa ahli tariqatihi wa rida rabbihi wa taqdisihi an ruhi ilfi ruhihi ruhil mumiddi bi raghmil muliddi mawlaana dafinu faas wa silwatul anfaas abul abbas ahmad ibn muhammad salim tijaani wa radiya an jamiici xulafaa'ihi wa ahli tariqatihi la siyama qutbil akbar saaxibul himma al aaliya saaxibun nasabil a'laa alxaaji Abdullahi Ñas وجميع أولاده المبارك لا سيما الخليفة الحاج محمد صاحب هذه الزيارة المباركة أحيي كلا منكم باسمه واسم عائلته أزكى وأعلى تحية الميمونة المبارك ألا وهي سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين mbokki jullit yi mbokki soppey sayduna muhammad sallallahu alayhi wa ginnaaw ba ñu sante yàlla mi borom fépp ak lépp waaye it di julli ci soppeem bi nga xamante ne mooy sayduna muhammad mi ko gënal ñépp di sëlmal ci ay saxaabaam yi ko daan guddil daan ko bëccëgal lislaam bu doon garab ñoo jël seeni deret suuxatee ko boobu meññat ba ku ne man koo jariñoo mam xalifa ne ñooñu booleen xamut mooy ulaika al qawmu xaqan ahli tuqaa wal maali ñooñu usuudu xarbi nahaaran ruhbaanu bardi layaali ñoom athna al ilahu alayhim tala kullu taali bi annahum xayru akrim biha min xisooli di ñaan yàlla ngërmande ak yërmande yàlla ko ci borom fas abul abbas kenn sóoraalewu ko ndax amul maas cheikh amul jenn doom ju tudd abbas firam de mooy ku fi raw moo la jox sa donkaas abul abbas dañ koy faral di wax cheikh arab bu ne abbu mi ngi ci namm baatab baay cheikh na tijaani yi baayam tuddut abul abbas mahammad la tudd bil fatxil miimi maanaam duñ wax muhammad mais mahammad la wax amul doom ji du tudd Abbas ndax Cheikh na Tidiane Mouhamadul Bachir la am ak Mouhamadul Kabir ci ñu dund waaye bu ñu toppee Chamailul Tidiane bu Cheikh Ahmad Sukayri ji Cheikh na Tidiane am na fukki doom am na ca doom ju tudd Khalifa mbaadu mooy maam Khalifa mi moo tax mu daan wax moom Khalifa ne fa qalbu thamma rahinu shawqi wa darami waaye li abbas googu mooy firi ñëkkalaakoonu xar kanam góoru yàlla yi dañ daan sonn ci ut yàlla mu jaral leen ñu bàyyi seeni njaboot duñu lekk bàyyi seeni soxna duñu ñu joteeg ñoom bàyyi dëkkuwaay yu neex duñu fa dëkk départ dëdmal àll moo tax léegi nga dégg ñu lay nettali na diw def na lu mat ñeent fukki at ci xalwa diw def na lu mat fukki at ak juróom ci gàddaay diw def na fukki atak nangam ci tasaari diine Cheikh na Tidiane bi mu indee tariqam bi ne da koy jàpp boo ko jàppee doo sonn ci azkar doo sonn ci istighfar am fatxu am xalifa ne xanaa yëgoon ne tariqam bi dafa ñëw ngir nekk buuñaa pour dimbale ñu lahu xafifun min al awraadi yuusilu man qad laazama la ahda xaqan li futuxaati mhm. looloo tax ñu koy abul abbas waaye it kenn du ndànjaama gi nga xamante ne moo jëloon mission am alaaji Abdullahi Niass nga xamante ne moo njëkk a wax ne mooy jàmm moo ay ci namm xol yu xonaan ya kookoo njëkk jël baas ziyaare jëm faas jële fa ay xaas yu mu rawe gaay maam Abdullahi moomu xare na somb ci biiri bomb doonut lu yomb ca jamono jooja mhm. xeex na paate baajaan dàq fay ndaanaan ba ñu bàyyi caaxaan mu daane xarum ya kooku mooy alxaaji min war a waxtaane nga xamante ne atum ren mii di 2022 ci la am téeméeri at ci biir suuf waaye it war a waxtaane ki taawu leeram ba muy xalifa alxaaji Mouhamad Niass radiyallahu taala mi ñu miinee ci maam xalifa Niass waaye it mi ñu miinee woon ci ki nga xamante ne waa suuf dañ ko réere lool waa asamaan xam ko Ahmed Sukayri moo ko daan wax loolu bu ko daan bind leetar daanaan ko mi ngi jëm ci ki nga xamante ne waa suuf yëpp dañu ko réere waa asamaan xamko ko muy maam Khalifa Niass waaye it di yëkkati nuyoo bu sel bu laab di ko teg ci loxool ki nga xamante ne mooy suñu jazilal muhakkak arab dafa am lu ñuy tuddee jazilul muhakkak mooy benn bant bu mag bu ñuy yeew ci digg gétt gi nag yi di ci xasan seen yaram waaye loolu lay olof di wax ne lëkk bu lekkee alom na ko gërëmee coy suñu coyu tey mooy Serigne Cheikh Tidiane yi ni nga xamante ne moo dippee boppam dofu maam ma ne ko yaa dof ci ki dofoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa dof ki ki dofoon ci Cheikh Ned Ahmed Tidiane ba naan bu ngeen di lim dof yi na ngeen lim ne man maay ki njëkk a dof ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te amatuma ci ñaareel. kon moom dafa coppi collé coppi collé nag dara newu ci moo tax loolu ñu la ciy ndokkeel bu baax ñun de ñaan nañ yàlla am cofeel googu ndax Seydi Hadji Malick dafa doon wax ne ñun bu démb doon tey du ñu jël tarixa bi dañuy sopp Cheikh rek. ku sopp cheikh dem aljana kon doo ci jël di sonn walan yamuuta la wax man yuhibba cheikhana illa isa naala wilayatal muna ginnaaw boo soppee cheikh rek balaa ngaa dee nekk waliyu kon kay darul jël tarixa bi di sonn waaye ay buñ ko defut du am garanti loolu moo tax kon ñu ngi lay ndokkeel bu baax di yëkkati nuyoo bi di ko teg sa nga tegal ñu ko ci mbooleem kilifa yu ror jotaay bi jotaay bi dafa riche di ko teg mbooleem njabootu maam xalifa gi nga xamante ne ñenn ñi ñoo la faree mag ñenn ñi ñoo la faree ndaw ñenn ñi di say rakk ñenn ñi ngay seen bàyyi ndax li ko waral ña ñaseen ñëpp benn bopp lañ koo ci laal da ngay laal hmm. waaye di nday jooree nuyoo bi ki nga xamante ne dafa bàyyi itam yëpp bàyyeekoo ba Dakar muy kilifa di activist hmm. di xeexal réew mi tax koo jug hmm. jëfee li arab yi di wax ne xubbul watani min al iman bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk kon yëg ne daw na ñeseen maam Khalifa ci ñi daan xeexal Sénégal la waaye ci ñi daan représenté Sénégal la fu ñu manti toll ba nga xamante ne guerre mondiale 39 cinq bi mu tàkkee def na ci xasida boo xamante ne xasida bi limu mu yi mi ngi tolloog 221 tolloog indicatif Sénégal muy ñaan yàlla yàlla fay guerre bi xiif gi nekk Sénégal yàlla diree ko fi mi ngi wax ci biir xasida bi ci ad'uka ya rabbi fi amaliya allai ayayna gayraka min daanin wa min naai fa anta ya rabbi macbuudi wa mustanadi walam adal minka masxuuban bi alaai inni faqirun wa laysa tibbu yanfauni fa azhibi daa anni muzhiba daai waaye yet di dugg ci li ñu tax a jug Seydi Omar Serigne Cheikh dañoo xamul nu ñu koy def olof day wax ne koo xamul ni nga koy def nim la defa tax ndax dafa tànn cër bu mag yëkkati ko teg ko ci suñu loxo muy ñu war a waxtaanee cent ans wu alxaaji ci biir suuf ndaw lu diis ay bu ñu xamoon ki ñu war a waxtaanee mooy kan ay bu ñu waroon xamoon jëmm ji ñu war a waxtaanee ay mayam ndax benn jour benn sëtam mas na di ko tooñ ñii benn taalibeem ne ko alxaaji Abdoulaye Niass xanaa bu la yàlla fayoon adduna aljana lu toll adduna xanaa da danga kontaan mu ne ko fu may def sama taalibe yi kon ma delloo ko waaye loolu day firi waxu Cheikh Ibrahim di bàyyi bi ne maam Alxaaji Abdoulaye Niass ci interview bu ma gis mu def ko ci Gàmbi 68 nee na lu mat téeméeri junney nit jàpp nañ tariqa tijaan ci loxoy Alxaaji Abdoulaye Niass kon kii nii bu ko yàlla del joxe aljana lu toll ni àdduna kay da koo mhm. waaye it boo génnee ci frontières yi ci barkeel alxaaji Abdoulaye ñas ñu teral mm-hmm. kon dangay nga yëg ne kii bëri nañu xam tariqa tijaan ci travers Sénégal ak international ak national ci loxool alxaaji Abdoulaye ñas ak i njabootam ci lañ ko xam ne waaye it jëmm ji ñu war a mu nekk jëmm ju riche jëmm joo xamante ne mënuñ koo tënk ci benn minute mënuñ koo tënk ci ñaari minute mënuñ koo tënk ci benn fan mënuñ koo tënk ci jamono ndax dundam lépp jàngale la alxaaji Abdoulaye Niass buñ ko jëlee ak askanam ñu jël alxaaji Abdoulaye Niass ak jàngam ñu jël alxaaji Abdoulaye Niass ak tariixam ñu jël alxaaji Abdoulaye Niass ak tasaare xam-xamam ñu jël alxaaji Abdoulaye Niass ak tukkeem ñu jël alxaaji Abdoulaye Niass retourné ci tukkeem loolu rek bu ci nekk tamu boppam la kon kii université la bu meññ ay universitaire ndax maam alxaaji Abdoulaye Niass boo demee ci mutri bu saamiin benn téere la boo xamante ni ibnu mbooja naar bu dëkk gànnaar moo ko bind ci xayaatu alxaaji abdoulaye ñas bind na ba bind ëmb yi tuuru biir kër maam kon kii dundam gi àdduna la mënuñ ko jàngale ci ay minute mënuñ ko jàngale ci ay waxtu xanaa dañ ciy tënk lenn rek fas mooy kan ak li amoon mooy lan ak li doon mission ci àdduna alxaaji abdoulaye ñas ak askanam Sénégal fii la juddoo ci dëkk bu ñuy wax Jolof Jolof capital la woon ci capitalu diine ji waaye it capital la woon ci capitalu senegal yi bëri na ñu ñuy tudd ci réew mi ci ay kilifa boo toppee seeni jotaay ñi ngi bàyyeekoo Jolof waaye maam Alxaaji Abdullahi Ñas na nga yëg ne dëkk bu ñuy wax Béeli fa la juddoo Béeli nag baat bi tukulóor la am na ñu wax boyli am na ñuy wax béeli am na ñuy wax bellal baata béeli boo ko boo ci taxawee li muy firi xaqiqatan mooy fu bari ay ndox ñii ne foo xamante ne dañ fa daan rootee ñii ne mooy foo xamante ne ay déeg dafaa bëri woon ñetti maanaa yépp béeli mën na ko firi maam alxaaji mi ngi juddoo ci dëkk bu ñuy wax béeli moom alxaaji Abdoulahi Niass béeli mi ngi nekkoon fan mi ngi nekkoon Jolof waaye it kan moo jur alxaaji Abdoulahi Niass waajuram juramu góor ñu ngi koy wax Mouhamad Niass Mouhamad Niass mii tey bu ñu toppee askanam day daanu ci ci muraabituun ku mag góoru yàlla gu duggoon ci Afrique doon fi dugal diine ñu koy wax Rida Rida mii moo jugee dëkk bu ñuy wax Bayla ca fi nga xamante ne mooy Benghazi ca Libya tey jëmm ji malay wax ni meññi waajur alxaaji Abdoulaye Niass wu góor fa la jógee waajur alxaaji Abdoulaye Niass wu jigéen di Xadijatu Caam Xadijatu Caam Ibrahima Caam kéllal moo ko jur dëkkoon fii ci Caamen Waalo waaye cosaanam di Jolof Ibrahima Caam kéllal moomu nga xamante ne mooy nijaayu alxaaji Abdoulaye Niass mi jur waajuram juram ngay fekk mam Masamba Thiam mi nga xamante ne moo fi taxawal daara njëkki fay taxawal daara ju ñuy jàngee ci senegal nga xamante ne mam Maaram Mbàkke mi jur suñu waay jur suñu mam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ca daara jooju la génne waaye it mam Ousmane mi nga xamante ne moo jur Seydil Hadji Malick ca daara jooju di mam daaray mam Masamba Thiam ca lañ génnee kon da nga yëg ne silsila Sénégal yëpp benn bopp la muy Jolof hmm. waaye it da nga yëg ne maam Masamba Thiam moom tey meññi na doom ju ñuy wax alxaaji Abdoulaye Niass waaye cosaanam da nga koy boo ko dàqee mi ngi dem ca buur ba njaajaan njaay ndax jaay la njaay la santoon ñii na ñas gi dafa gaar si lan moo indi jaay la ñas yàlla dogal fas wi ma ak moom jaare ko foo xamante ne ay garab moo fa am garab yi xawalaal bët bi ginnaaw doomi buur la woon ñi ko daan xëy di ko seet si ñemewu ñoon wax jaay bët bi dafa dafa am jafe-jafe waaye jaay bët bi dafa ñaas lañ daan wax jaay la moomu bi mu ñëwee nekk mag yàlla dogal mu nekk ci dëkk bi kii ma lay wax di Rida bokkoon ci muraabituun yi nga xamante ne ñoo daan dugal diina ji Afrique seen cosaan di Uqbatu ibnu Naafi' mu njëkk dugal diina ji Afrique ndax bu leen fàtte ne Afrique bokk na ci ñi rawale l'islam tey moo tax Cheikh Tidiane si daan wax ne yàlla bu xeebee diine Sénégal ñàkk bopp ndax yonent bi biñ sonalee saxaabi yi bañuy ñuy gàddaay ñëw Éthiopie la ñu ñëwoon ci buur bu ñuy wax Najashi moom ma leen dencoon Afrique la tey boo jëlee vol Sénégal war a wàcc Addis Abeba da ngay def sept heures de vol boo wàccee mook Arabie Saoudite ñoo frontière ci ngay doog a xam ne Afrique bokk na ci ñi rawale diina ci Rida mi jógee Libi ca Bayla ñëw ñu may ko Jayla lan moo waral ñu may Rida Jayla rida bi muy ñëw ginnaaw xarekat la woon ci lislaam booy dugal diine léeg-léeg nga jàpp ay nit fekk leen ñu am ay jar-jar ak i gànjar ak i wurus yooyu noonu da nga koy xaaj juróomi xaaj benn bi yow yaa koy jëfandikoo nga séddale ko ñu demoon ci guerre bi yeneen ñeenteelu xaaj yi day dem trésor public loolu jullit ñépp ko moom loolu la ñuy tuddee baytu maal alquran moom lay wax ne waalamu annama ganimtum min cheyin fa anna lillahi xumusa loolu noonu moom la rida amoon ànd ay xeeju or bi mu ñëwee nag ginnaaw jolof la wàcc jolof fekkoon na fa ñoo xamante ne dañ daan bëgg a jëfandikoo or ndax or mooy li garanti àdduna bi ñu ne jay mi nañ ko jël may ko rida ndax mag la ndax ñu mën a jot ci or yi bu mu fa am njaboot ndax ku xas ba am quarante ans wala quarante cinq ans jëm kaw pour nga am njaboot dafay xaw a jafe waaye ci mbaaxu yàlla yàlla may na yonent yàlla Ibrahim mu sëy ak Haajara booba am Ibrahim mi ngi am cent dix ans Haajara mi ngi am quatre vingt ans yàlla génn ci doom may leen Ismaayil waaye it yàlla dogal jayla la moomu jël ëmb Rida di continuer mission am wax ne bu juddoo nañ ko tuddee Muhammad Mouhamed ku ne xam ne Saalum Saalum buy dàkkantal nit Mouhamed moo gis fii ci Saalum Samba lañ koy wax mu yëkkati kaamil jox ko jaay la ne ko bu juddoo ba mu toll ci mata jàng jox ko lii mooy héritage am ne ko na lu jàng kon ñun askanu Ñaseen ki njëkk a jàng ci ñun mooy Mouhamed Samba bi mu juddoo ñu koy askanalee Samba jaay la ñas kon Samba jaay la njaay ndax rida naar la te naar kenn xamul santam Haydara rek lañ leen di wax Samba Jaay la moomu ma wax noonu doomi Jaay la la Jaay la doomi buur ba Jolof la boo ko toppee silsilaam dafay dem ci Alburi Njaay Jaay la moom la yàlla dogal mu am doom ju ñuy wax sàmba sàmba ñëw dencaat jigéen ju ñuy wax saa coro saa coro moomu yàlla moom la may saa coro faal boo ko seetee doomi dëcce fu njuugu faal la mooy première dammeel di Kayoor indépendance waaw Déthié Fall ndax Jolof boo ko seetee ni mu bindoo woon ki leen njëkk a may indépendance njëkk a nekk seen maanaam chef kooku mooy Déthié Fall Ndiogou Déthié Fall Ndiogou moomu moo jur soxna Coro Fall moom lañ mayoon Samba Coro Fall moom yàlla dimbale ko mo am ci doom ju ñuy wax Mouhamad ñu koy dàkkatelee Lamine Saacoro Lamine Saacoro moomu moo jur bëkkëri boo seetee askanu ñeseen buñ koy dàqaat ñun ñëpp ñi ngi delluwaat ci bëkkëri moo tax ñu naan la ñes Gumba Abdoulaye Samba Coro Fall bëkkëri ak ngàjja bëkkëri moomu maam alxaaji birrul abar téere bi mu bind fii taarifi awlaadi bani bakar bi muy delloo silsilaam sax mi ko delloo ci bani bakar kon ñun ay bani bakar lañ Bakar moomu moo jur ma demba ma demba moomu moo jur alxaaji Abdoulaye Niass alxaaji Abdoulaye Niass moomu moom la ñuy waxtaanee tey kon kii da nga cosaanam nii la demee waaye it baayam di Muhammad moo ko jàngal Alqur'an yàlla dogal bi mu ko jàngalee Alqur'an maam alxaaji Abdoulaye Niass jàng naa ak waajuram ba jeexal xaaju suuf te mës a kon cosaan gi doon jàngee. da nga yëg ne alquran cosaan li mooy da daan jugee ci góoru yàlla di dem ci góoru yàlla tey dund boobu mu jugee di Muhammad di waajur alxaaji Abdoulaye Niass ñëwaat na ci dëndu alxaaji Abdoulaye Niass li lay wax ne alxaaji Abdoulaye ku sonn ci njàng la juram dafa gëm ne nit ki bu la jàngalee dana la yaral te bu la yaralee rek benn dana fa jëlee ñaar lu neex wala lu la naqari yàlla dimbale ko waajuram jàngal ko ci loxol boppam ba mu jeexal xaaju suuf waaye it waajuram woowu moo ko jàngalaat ba mu mooy Muhammad bi alxaaji Abdoulaye Niass mokkale alquran yàlla dimbale ko moom moomu alxaaji Abdoulaye Niass tafsir alquran ñaari mbir ci la ko def Muhammad Niass moo ko jàngal alquran tafsir ñii ne Ibrahima Thiam Kellal defal na ko ko di nijaayam ñii ne it Mouhamad Mokhtar defal na ko tafsir alquran waaye yëpp da ngay yëg ne Alhaji Abdoulaye Niass li ko jëlee Jolof indi ko Saalum benn mbir la mooy bu njëkk yëre dafa jafe woon denn yëre rek moo daan am ci pénc mi bu kenn daan dem ci ay kilifa wala muy daje ay nawleem sol ko mag ñi dañ daan dajee ci beeñ bi di fuubu jël beeñ sotti ko ci seen yëre yi sotti ko seen yaram toog ci digg penc bu njëkk yëre amutoon alxaaji Abdoulaye Niass ut si witteen moo ko indi Saalum witteen bu ngeen ko xamul yéen olof yi moom mooy coton coton ci lañ daan jël di ko rabalante ay yére pour mën a am lu ñu sol loolu moo indi alxaaji Abdoulaye Niass Saalum bi yàlla dogalee alxaaji Abdoulaye Niass ñëw Saalum yàlla dimbale ko mu wàcc dëkk bi njëkk a wàcc dafa fekk sëriñ daara bi tukki sëriñ daara bi tukkee alxaaji Abdoulaye Niass jël taalu yi jàngal leen alquran képp koo xamante ne fi nga yem alxaaji Abdoulaye Niass bu ñëwee gis ne fii nga yem dana bind lu tollook sumun wala lu tolloog ruba wala lu tolloog nisif dolli ko ci sa bim sëriñ bi bi mu ñëwee laajte kan moo def lii ñu ne ko alxaaji Abdoulaye Niass mu ne leen kooku de bëggoon naa koo gis yàlla dogal fekk ko fa alxaaji Abdoulaye Sy génn di ñibbi dajeeg ay soldaar ñu jàpp ko duñ ko jàppee ne ko jamono jooju képp koy tukki bu ñu la jàppee dañ la yóbbul buur waaye da ngay joxe lempo mu ne leen man xawma luy lempo xarraaj xawma ko jullit du ko joxe xaraaj ci lislaam li koy indi mooy yàlla yàlla maam alaaji fayal la boppam xarraaj ci lislaam bépp koo xamante ne gëmut yàlla diine ji di attewoo diine lislaam wala réew moomu bu fay dugg wala bëgg faa def business wala bëgg faa def liggéey bu weer dee dafay joxe li ñuy tuddee lempo loolu mooy xarraaj ñu jàpp alxaaji Abdoulaye Niass muy jullit ñu ñëw bëgg koo joxe la lempo mu ne leen man kaw ma li ngeen di wax ñu yóbbu ko ñooro ci mabba Jaxu Ba Maba Jaxu Ba bi mu waxtaan ak alxaaji Abdoulaye Niass gis ne borom xam-xam la aalim la waaye it yàlla dimbale ko Mati Ndiaye mi doon soxnaam Maba Jaxu Ba Mati moomu nee naa leen doomi buur doomi njaajaan njaay la buur ba jolof ñaari mbir feeñaat ci alxaaji Abdoulaye Niass borom xam-xam la mbokki soxnaay maba jaxu ba la mu xamal ko ne ko man kat bu doon sama sago dama doon ñaari mbir ci Cheikh Omar mooy damaa doon du jihaad yoo xamante ne Cheikh Omar Fouti yi moom moo ko jox ma bëgg a tasaare diine ji tubaab yi gawee ma côté bii ceddo yi gawee ma côté bii bu doon sama saako kat ma bind ay leetar jox la ko nga delluwaat jolof wax say nijaay ñu ñëw dimbale ma ci guerre bi moo tax bi yàlla dogalee Ibrahima am Kellel ñëw jugee jolof dafa bokk ci généralu Alhaji Abdoulaye Niass yi doon diriger guerre bi moo tax guerre somb Alhaji Abdoulaye Niass mu ngi am 18 ans bokk ci généraux yi doon diriger armée bi moo tax ndaw lu mat a bàyyi xel la damay wax ne alquran ñetti ndaw la mës a tudd alquran tudd na mag mu bon waaye mës sa ndaw lu bon alquran ñetti ndaw la tudd ñëpp daf leen a adhéré na ñu baax lañ bi muy tudd asxaabul kahfi daf ne ñoom yi xanaa yëgoo ay ndaw lañ innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan fidya la leen tuddee waaye ndaw yooyu dañoo volonté woon amoon buur bu kàccoor bu leen doon not muy diqiyaanuus bëgg leen a tàqaleeg diine ñoom ñu dajee volonté wu ne dañuy dundal diine kon ndaw nañ yëg ne moom rek mooy ki mën a doxal diine waaye jamono ji li tax ndaw ñu bëri réer dañoo nanguwut gëstu diine bu ko defee masala wala diine bu ñëwee ñii dañ ciy wax lii ñiy wax ci lii ñu am problème fan la ñuy teg seen tànk waaye maa ngi leen di conseiller ñu ndaw ñëpp nañ yëg ne ñoo war a doxal diine ji nañ ko gëstu ci xam-xam topp mooy Yuusa ibnu Nuun taalube yonent yàlla Muusa la woon alayhi salaam ba muy dem di daji uti yàlla daje xadir taalibe bi mu àndaloon Yusha ibnu Nun la tudd alquran ba mu koy tudd daf ne isqaala Moussa li fata tudd turam waaye daf ne kii nii fatan la muy jeune la moom la àndaloon pour uti yàlla beneen ndaw li alquran tudd bi muy toll ci dix-huit ans régler àdduna ak buur bu kàccoor muy Namruus nga xam ne bokkoon na ci ñeenti buur yi masa yilif àdduna àdduna ñeenti nit ñoo ko masa yilif penku ba sawu gauche droite l'est l'ouest nord sud ñeenti nit la ñaar ñi yéeféer lañ ñaar ñi jullit lañ Namruus mi nga xamante ne moo tombé woon ak yonent yàlla Ibrahim ci ñi yilifoon adduna bi l'est l'ouest nord sud ci la bokkoon alquran ba muy wax ak yonent yàlla Ibrahim ci gañe gi mu gañee Namruus daf na ko qaalu sami'na fatan gis nga ñett yëpp baatu fidyaan la ñu jëfandikoo kon ndaw lu bon amul ci adduna yonent bi ñëw firiwaat ko am na guerre bu taxawoon ba muy délégué guerre bi Alioune la jël jox ko drapeau bi Alioune dem daje ca ku ñuy wax murhab murhab di bakku alin nako ko xanaa xamoo ne man maay Alioune ana Alioune nisbati bayinul xara abul imaamayni kiraamin barara kooku ndaw la woon kon yàlla mës sa tudd ndaw lu ba waaye alxaaj Abdoulaye Niass ci 18 ans ci la nekkoon généraux wu armée dem jëli ay nijaayam jëlee leen jolof ñëw ñu def leen armée yàlla dogal tafsir Maba Jaxu Ba sancal mam maaram Mbakke Poroxaan sancal maanaam alxaaji Abdoulaye Niass papaam Mouhamed Niassène waalo waaye it jël ñi nga xamante ne mooy Serigne Maska ak njabootam indi leen kon boo seete ñii cosaanu Saalum ci alxaaji Abdoulaye Niass waaye alxaaji Abdoulaye Niass jugee na fa jàpp tariqa Tidiane ñii na sax baayam xaadir la woon waaye tafsir Maba moo ko xemam loo tariqa Tidiane ngir gis na ne tafsir Maba jëlee na tariqa Tidiane ci Cheikh Omar Fouti yi moom moo ko ko jox ala yadihi bi mu jotee tariqa Tidiane ci tafsiru Maba Jaxu Ba gis na tafsir Maba Jaxu Ba jot na tariqa bi Cheikh Omar Fouti yu am na fatxu te Alxaaji Abdoulaye Niass fatxu ak wilaya moo ko taxoon a jug mu gis tafsir Maba Jaxu Ba ñee ko lool baayam bi mu ñëwee di waxtaan ak nijaayam Serigne Kellal nijaayam moo ko jox tariqa bi mooy ki ko ko njëkk a jox. bi nga ko joxee tariqa bi alxaaji Abdoulaye Niass di ci pratiquer ba am ci fat yàlla dimbale ko moom alxaaji Abdoulaye Niass bi mu jotee tariqa bi ci nijaayam sëriñ Kellal yàlla dimbale na ko it mu am lijaasa ci Mouhamad Diallo Mouhamad Diallo ndar la nekkoon dugg na xalwa lu mat 9 ans moom Mouhamad Diallo dugg na xalwa lu mat 9 kon nitu yàlla ku yàgg a sonne ci tariqa bi la kooku. moo jox alxaaji Abdoulaye Niass première lijaasa waaye it ijaasa mu xayyat la ko joxoon ndax daf ko tënkoon bi ko joxee par exemple lu mat quatre-vingt-dix-neuf personnes wala lu mat cent personnes la alxaaji Abdoulaye Niass war a may wirdo jour bi mu delluwaat Jolof alxaaji Abdoulaye Niass quatre-vingt-dix-huit personnes yëpp ci jour bi la leen may tarixa tijaan kon kii ku daan liggéeyal tarixa bi la ku daan liggéeyal diina ji la mu delluwaat ñu tënk ko ci may tarixa bi may ko ñeenti lijaasa waaye terewut ñaari gànnaar yi mi ngi bindanteeg ñoom ñenn ñi di ko may lijaasa ci mu mën a may tari maanaam itlaaq wala mu xayat ci lu mat fukki mu xaddam alxaaji Abdoulaye Niass ne lii dooyu ko dafa fas yéene dem faas fa nag wa dee pour uti ijaazatul itlaaq yàlla dimbale na ko am na ko am na fatxul akbar am na fa yeneen ak yeneen maam xalifa mooy nettali ne wazaara cheyqiya fii faasin ala kibarin lakin yuharrikuhu xubbul mulaaxaati waaye ndax am na lim doon ut mu ne leen fanaala zalika yaqzaanan wa saafaxahu baxrul maarifi yan buuxul karamaati kenn du alxaaji Abdoulaye Niass yàlla dimbale ko moom alxaaji Abdoulaye Niass yoonu Fass mu jëlee fa mayu rëy ñii ne ba mu fa yeggee bët bu set dafa daan def fukki junney salaatul faatihi ak ñaar du ko jaar ci porte bi de waxuma nga jaar ci ay talsam nangam ak nangam ngir liggéey benn baat boo ko liggéeye ci salaatul fatiha man ngaa am téeméeri milliards yi salaatu salaatul ak ñaar moom la maam Khalifa di jundu ci salma ba koy tëj wa tisu salaatin minhu alfi naamiyatun madrubatun fi samaani alfu tisaini loolu tal sam benn baat rek ñoom seen cheikh yi xam nañ ko dañ koy faral di tudd da nga koy wax rek am milliard cent vingt neuf ci jawharatul kamal waaye alxaaji Abdoulaye Niass dooy lawul talsam sam de fukki junne salaatul fatihi ak ñaar la daan toog ci kurus di ko liggéey kenn du moom ànd ak loolu lépp dundam gi cent onze ans na ci alquran maanaam téeméeri téeméeri yoon ak fukk ak ñeent muy limab samadu moo tax ñeseen ñi al maqsuud bil xaajaati heure boo leen sa aajo faju jërëjëf loolu xaajab laa gis da ko yàlla defal fayee ko ko lim ak li mu tafsir alquran muy téeméeri yoon ak fukki yoon ak ñeent muy cent quatorze fois mu xam atte yeeg mbóot ya mooy géej moom alxaaji Abdoulaye Niass yàlla dimbale ko mm. bi mu demee toog ci dari xa Seydi Ahmad Tidiane mu ne maa ngi ut waaye li may ut ci Seydi Ahmad Tidiane du ma ko wax ki ma koy jox moom moo ma koy wax ba mu toogee sax fa ab diir benn góor ñëw ne ko du ay ah, yaa alxaaji Abdoulaye mu ne ko waaw ñii ne mooy imaamu zaawiye bi mu ne ko kaañu dem mu ànd ak moom boo yóbbu ko ci imaamu jàkka ji ne ko kii moo la war a jox li ngay sàkk mu ne ko lan la yaay alxaaji Abdoulaye Niass mu ne ko waaw mu ne ko du yaa soxla tariqa Tiijaan ijaazatul itlaq ñu jox la ko mu ne ko waaw mu ne ko am ijaaza itlaq mi ngi nii mu ne ko du yaa soxla woon peru kurusu Seydi Ahmed Tidiane mu ne ko waaw ah, mu ne ko mi ngi nii mu ne ko du yaa soxla woon karawu Seydi Ahmed Tidiane mu ne ko waaw ah, mu ne ko mi ngi nii mu ne ko du yaa soxla woon ba ñu suulee Seydi Ahmed Tidiane ba sulli ko ndax Cheikh ñaari yoon la ñu ko suul ndax dañ ko njëkk a suul Cheikh dafa waxoon ne Mouhamadul Xaali yi moo may jullee bu ma génnee àdduna bi Cheikh na Tidiane yi génnee àdduna tombeeg Mouhamadul Ghali dem Makka bi mu demee Makka yàlla dogal ñëwagut Cheikh génn àdduna ci ginnaawam ñu ne ay na Mouhamadul ñu ne ma nga Makka ñu ne laa ilaha illallah Cheikh na Tidiane la mu waxoon dagg na ñenn ci kàngaam yi ñëpp dagg seen kurus yi ci tariqa bi ne wali yu piir du wax muy daj yàlla dogal ñi seqoon Seydi Ahmed Tidiane ku mel ne Seydi Arab Alioune Harazi ne la waxoon du dañ de yàlla dogal Seydi Mouhamadul Ghali dem na Makka ñu Cheikh Tidiane yi gaañu na ñu denc ko ñi ngi am problème mu dañ koy denc Algérie wala dañ koy bàyyi Faas atrak yi muy waa Turquie ñi nekkoon biir Fès ak ñi nga xamante ne ñooy wax Algérie ndax Cheikh na Tidiane yi aynu maadi la juddoo maam Khalifa koy wax wa bi ayni maadi kaana badu shuruqiha wa bi faasa qad sadaat ala al arjaay fa la ñu ne dañ koy delloo ci cosaanam comme niñ koy defe problème boobu am ñu ne dañuy denc Cheikh na Tidiane yàlla dogal ñu nekk ci problème boobu mu xaw a diire Mouhamadul Ghali yi ñibbisi bi Mouhamadul buur bi convoqué leen ñu ñëw mu ne leen ginnaaw Cheikh na Tidiane yi fële la juddoo waaye ndawam ak yaram yëpp fees la ko def nit ku nekk kat fa nga màggee fa nga yaroo yonent bi makkatal mukarrama ku ne xam na ne fa la juddoo Cheikh Abou Abi Talib waaye ña ngi ko denc madinatul munawara nañu bàyyi Cheikh na Tidiane yi fii ngeen moom juddu gi ci barkeelu ñu moom denc gi ci barkeelu yàlla dogal ñu bàyyi Seydi Ahmad Tidiane yi phase bañ ko sullee xeer woowu ñu ngeenganaloon Seydi Ahmad Tidiane yi war ko sangaat sangaat ko Mouhamadul Xaali jullee ko jox nañ ko alxaaji Abdoulaye Niass ci maam Khalifa la mujj dinaa ci ñëw xeer wi fan la mujj ak naka la ñu def ba xeer wi dugg ci biir suuf yàlla dimbale alxaaji Abdoulaye Niass mu jot sa xeer woo karaw Seydi Ahmed moom fii ci yaa fattut ñang mi yar alxaaji Amadou ci la ci la mujj sax yàggul karaw gi moom yàggul mm-hmm. am na sax ñu ne am na ñu ko denc ba léegi mm-hmm. kon lii yàlla dimbale na alxaaji Abdoulaye Niass mu jëlee ko Fass ak yeneen ak yeneen ba mu jugee Fass nag yàlla dimbale ko mu jaar Thiès njëgeeneen zaawiya Fass alxaaji Abdoulaye Niass ba muy ku yàlla dimbale woon mu mën a sonnee xam ak li ko tax a jug la dafa yóbbaale ay géomètre ñam àndaloon ca yoon wa waxtaan wi temps bee xat waaye konoon ñam àndaloon ca yoon wa fam jaar ñam dajal ñëpp dinaa leen tudd mu yóbbaale corde natt zaawiya fees bi ni dimension bi toll jaar njëgëneen mooy zaawiya bi ngay gis Cees biir njëgën zaawiya boobu alxajab laa gis moo ko natt ci loxo ba ñëwee law na ñeseen natt zaawiya bii kon ñetti zaawiya yi muy law na ñeseen ak njëgën sa Cees ak Faas ñoo tolloo même dimension boo ko doon natt mu jaar Tiwaawoon natt zaawiya bi nekk fa ab diir alhaaji Abdoulaye Niass maam alhaaji maam cheikh alhaaji Malick mooy nettali ne ba mu jógee Fass fii la wàcc ñu teeru ko teral ko waaye it moom moo nekk na fa ab diir boo xamante ne dafa doon jàng di jàngale ataa habibi li rabbil hamdu min faasi wa jaana is ataana tibu anfaasi hatta wa yunsuruna miskan fi mawtinina mubashiran kulla anwaain wa ajnaasi lii alhaaji Malick si moo ko bind ci loxo kon zaawiye yëpp da nga yëg ne benn zaawiye la mooy zaawiye tariqa tijaan tasaare ko moo leen taxawoon a jug waaye tasaare mission wu Cheikh Omar Fouti yi moo leen taxawoon a jug tasaare mission wu Seydi Ahmada Tijaan yi moo leen taxawoon jug ñoo bokk ñoom ñëpp lu dox ba yoonu Fass wa yóbbante nañ ko fa ay xaraf mu ñëw ngir jox ko alxaaji Abdoulaye Niass lii boo demee ca maanaam alxaaji Malick ifaamul munkiril jaani Seydi Alxaaji Malick bind na ko ne alxaaji Abdoulaye Niass jugee na Fass ndaaleen ma yóbbante boo xamante ne fa la jugee yàlla dimbale ko jot na may gi dundam a ngi waaj a jeex ci 1922 yàlla dimbale ko mi ngi tàggatoo dajee la na njaboot gi ñëpp ñu dajee mhm. mu ne leen maa ngi waaj a génn àdduna man alxaaj Abdoulaye Niass kaay ma batale leen ñoom ñëpp ñu dajee toog ci mbalaanul wasifa maam xalifa mooy nettali mhm. bi ñu dajee mu ne leen dajee leen ñëpp ñëpp ñu dajee mu ne la yëkkati leen sama loxo teg yëkkati loxo njaboot yëpp teg yëkkati loxol maam xalifa teg ci kaw ne nii bu dakkul man ak yéen ba aljana maam xalifaay bintu ne kama xadda cheikhi comme ni nga xamante ne noonu la ko sama sëriñ ñaaxee bu leen fàtte ne maam xalifa ci laay bëgg a ñëw alxaaji abdoulaye ñi say sëriñam mhm. te dina moom moo ko bind ci loxoom wane ne alxaaji abdoulaye ñi mooy sëriñam xadda cheikhi baada zaaka wa walidi ala ulfatin misla tibaail xalifati la daa mashhadil jumhuri mi ngi nettali dajee bi axira umrihi bi taariqi shamsin baada zikril wazifati maam Khalifa ku naqaree sosal la ndax lu mu wax da koy lii ma lay wax bu ngeen delloo ci kibritul ahmar da ngeen ko fay fekk bu ngeen ci basamaatu rasiqa da ngeen ko fay mu ne yéen ñii di sama njaboot damaa bëgg ngeen tàppoo damaa bëgg yit ngeen jokkoo damaa bëgg yit ngeen di dajee na ngeen yëg ne saxaaba Seydi Ahmed Tidiane yi ñooy saxaaba yonent yi cheikh moo waxoon ne samay saxaaba na ngeen toppante bëggante ndax saxbu rasul yi saxbu Tidiane yi xubbu rasul yi nuuru zaman oh. soppante rek ci ngeen mën a amee li ngeen bëgg maam xalifa ngi koy wax ca xasidam ba saxaabatu cheikh kuunu fil mawaddati wa fi tawasuli kuunu wal muwaxaati mm-hmm. loolu waa Kucce li ci jundu waaye saxaaba cheikh yëpp lañ ci bokk ndax dafa mas a am ci jamono Seydi Ahmed Tidiane cheikh deewagul mi ngi dund am ci ñaari zaawiyaam yi ñu am problème ku ci nekk naa ngi naan yaa doon Seydi Ahmed Tidiane comme ni mu xewee ci jamono ji maa doon diw te te diw moomu mi ngi dund. ba zaawiya yi dajee nar a dóorante bakkan nar faarat Cheikh na Tijaan yi dajale leen wax benn baat mooy man yaarifu nii yaarifu nii wax di képp ku may xam ci tariqa bi nag ma xam man kese tariqa bi benn sëriñ laa mooy Seydi Ahmed Tidiane ñeneen ñëpp ay taalibe lañ ci biir tariqa man ngaa liggéey nag ba am ci cër waaye it na nga yëg ne ndongo nga ci biir tariqa Tidiane ndax na nga yëg ne li nga xamante ne mooy maqaama ci tariqa bi mi ngi yem ci maktuum Cheikh na Tidiane yi moo ci toog keneen mënu ko jot moo tax borom ibnu baaba ne maqaamuhu maktumun an kullil wara siwa ma maa waraahul wara moo tax njabootu alxaaji Abdoulaye Niass yëpp tënku ci ginnaaw Baye Khalifa Baye Khalifa yenu xilaafa bu diis xilaafa ak alxaaji Abdoulaye ak fi mu jaar ak fi mu jàng ak lim jare ci ijaaza nga xamante ni ñu bindante ci naaru gànnaar ñu jox ko ijaaza mu doy ko mu dem ba faas uti ijaazatul itlaq ak lim yore ci secret nga war a yenu boobu martaba jëmm joojoo tax ngeen daje tey moom la ñuy ziyaara tey muy xalifa Niass xilaafaam ñaari mbar mbir rek laa ci wax bi jox la kàddu Ahmad Sukayri moo ñu waxal xilaafaay mam xalifa Niass nee na alxaaji Abdoulaye Niass Ahmad Sukayri mooy wax nee na kenn laa mës a gis kott rok dong baayam génn àdduna ñu yëkkati maqaama bi waajuram toogoon teg ko fa mu toog fa muy alxalifa alxaaji Mouhamad Niass koy teg ci seize bi ba mu yéegee bañ tegal ko mbaxana bi dañ ko ne ko haza maqaamu walidika alxaaji Abdoulaye Niass lii sa maqaamu waajur la alxaaji Abdoulaye Niass waaye it xalifa Niass dondut alxaaji Abdoulaye niñ koy defee ci jamono ji mag falu déedéet dañ man xalifa dañ koo préparé alxaaji Abdoulaye Niass moo ko daral baa siin mimara ba fatiham jeex tak mu jël ko jox ko ku ñuy wax mouhamadul jaxeer mu jàngal ko ba ammayata saaluuna ani nabil azim mu jël ko joxaat ko ahmad njaay mu jël ko jàngal ko ba suratu saffi mu jëlaat ko jox ko alxasan mu defal ko li ñuy tuddee tëj maanaam alquran ba mu jeex alxaaji Abdoulaye Niass récupéré ko jàngal ko ba mu mokkal mu defar tëj wiitam yëkkan ko jox ko ku ñuy wax alxasan siise kumba darma muy nijaay ñoom Cheikh Diane siise ak imam xasan siise mi ñu ma dippee ci Medina kon kii alxaaj Abdou Aziz def ko pare préparé jàngam def ko muy keno waaye it mayam yàlla def ko dimbale ci juddoom moom xalifa alxaaj Mouhamad Niass ci la alxaaj Abdou Aziz jotee makkaama bi gën a mag muy fi góor yàlla yi di yem muy gis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax góor yi ku mu ci mënti doon ak maqaama boo mënti am boo gisagul yonent bi weesoo boo yàqu ne bi yàlla dogalee ni ñu ko mam xalifa firile moo lay wan bi mu juddoo ba koy tudd ci la alxaaj Abdoulaye Niass gis yonent bi ne ko am naa doom yow laa ko tuddee mam xalifa mooy nettali alxaaj Abdoulaye Niass ne ko naawil nii iyaahu jox ma ko mu jox ko ko mu def ak moom ñaari mbir maam xalifaay nettali nee na musaafaxante ak man saafaxa kenn nit du ko def mu musaafaxa bu ko arab waxee mooy ma jàkkaarloog Serigne Cheikh jox ko loxo mu jox ma loxo ma saafuwante ak moom bokkut ak nuyoo de salaamaaleykum bonjour déedéet dafa saafuwante ak man maam xalifa nee na saafaxtuhu saafuwante na ak man bi yamiini ci sama ndeyjoor yonent bi kenn du ko nuyu di ko jox lu dul loxo ndeyjoor déedéet waaye dafa bëgg a waxal ne moom ñi àndal moom xalifa ak ay taalubeem asxaabul maymana la ñu bokk wa asxaabul maymanati maa asxaabul maymana ñoo ñooy kuréel gi nga xamante ne maam xalifa dina wax fi mu leen dugal yàlla dimbale ko mu ne ma saafuwaat ak yonent bi sama loxo nday joor su ma xaddasani yonent bi wax ak man kon maam xalifa ñaari mbir la jàngale jamono ji ñun ñiy jàng ñépp dañoo am benn problème ban problème mooy ñun dañuy werante ndax gis yonent bi ci xadis bi wér na wala wéru problème boobu la ñu am ginnaaw bu yonent bi faatoo ndax ko na wala wéru am na boroom xam-xam yu ko bind ŋàññi am na ñu ko bind saxal am na ñu ne xadis bi nangam am na ñu ne xadis bi nangam maam xalifa ne leen xadis bi man du may ci yam dama koo pratiquer gis ko yonent bi bi may judd la firi xasida boobu xadis boobu damaa judd rek firi ko mooy damaa judd rek yonent bi ñëw ci sama gënte saafu wante ak man bind ko xasida mu leer saafaxtuhu bi yamini summa haddasani bi yemu ca waaye wa dammani dammatan saxat biha ilali dem leen gëstu jiwaat gis naa ku bind ne gis na yonent bi ay yooni yoon waaye ku gis yonent bi ci laytaay mosuma koo gis ku ko bind mam hmm. xalifa rek laa ma sa mu bind ko nee na yemu bi mu saafu man yàlla ci la ma dimbalee ma amee ci ñaar moo tax mu bind ñaari xasida fii nga koy déggee xasida bi ci njëkk mooy fama lisaani fii madixika sayidi kama laysa fi l aqtaabi misluka saani man xalifa ci tagg yonent bi ay saydi ahmed tiyaani awma ci ñaareel yonent bi ni mu doonee sël ci yonent yi Cheikh Ahmed Tidiane yi doon sël ci xutub yi man noonu laa doonee sël ci ñaar ñi leen di tagg awma ci ñetteel keneen mënumaa jot ci ñu mel ñaar ñi iqaalu kulli jamiil aasiqiina lahu fi xubbi taxta imarati wa rayaati yàlla dimbale ko nee na saafwante googu am naa ci loolu wa dammanii dammatan saxat biha ilal yemuma ca alhaaji abdoulaye ñes mii sama sëriñ mi nampatal ma am loolu ci ki nga xamante ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax ma ne alhaaji abdoulaye ñes maam xalifa moo wax ne mooy sëriñam maam xalifa dañ ko laaj ne ko yow kan mooy sa sëriñ mu ne leen alxaaji Abdoulaye Niass ñu ne ko boo ko bindul duñ ko xam ndax ñi la jàngal bëri na mu ne leen wa bi irsi min walidi wa bi cheikhi wa malazi abdul ilahi naqibi abdul ilahi mi ma jàngal naqib la moom mooy sama sëriñ waaye it dondu naa ko ci zahir dondu ko ci baatin maam alaaji nee na maam dafa ñëw maam alaaji oo ko di ko ñaax ne ko doom góorgóorlul nga fexee njub fexee baax fexee nangam ak nangam sa dudd ci laa gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko bàyyi da ngaa xër rek di ma ko nettali man bi may am juróom-ñaari at laa xàmmee wax ju waxu ak wax ju waxu moo tax ma bind xasida bi muy saafaxtuhu bi yamini fii musaamaratin wa dammani dammatan saxat bi ilali yàlla nañu yàlla fayal maam Khalifa Niass dañu yëg ne bi ak ñun may ñaar taalibeem yëpp la ko may te may gii rek waroon naa tax lépp ziyaara si mam xalifa dafa ne may gi ma yàlla may ma dond ko ci alxaaji Abdoulaye Niass mii sama baay may googu dama ñaan yàlla bu ma yéegee ba wàcc ko sama taalibe bi gën a ndaw ci ay daraja yàlla na ko yàlla yéegal ci may googu may googu mooy gan may may googu mooy yegg ci yàlla te doo sonn ci ay asgar doo sonn ci ay awra maam xalifa ne yàlla may na ma ko ba ma am ko waaye dama sonn ci jox ko samay taalu be ñaanal naa leen ko ba am nañ ko maam xalifa ne tara saxaabiya sakra min mahabbatihim lahum min assirri nahlun baadahu atam nee na may gi ma yàlla may ba ma nan ko bay mandi ba nga xamante ne da ngay ñëw fekk ma may daanu ci xaal ngir sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan dal naa ci sama taalu be ba boo tuddee cheikh ak yonent bi ñu xaal mm. may googu gàddu kurus liggéey fanaan ci ay dar fanaan ci ay xalwa mayu ko nit loolu mooy picc mu dugg avion bu naawee ma ngay naaw bu naawul ma naaw loolu la ñu maam xalifa defal kon lan lañ ko war a fay mooy bisam bii bu jotee maam xalifa benn ngant la ñu waxoon mayuñu ko mhm. na ñëpp ñëw la wax benn waaye mas na koo laaj ko xalifa ñes man de dafa am lu ma lay laaj mooy ziyaare bu jotee góor ñeeg jigéen ñeeg ñëpp ñëw di jaxasoo te lislaam nanguwu ko maam xalifa ci dégg fiqam ne ko xanaa du makka utaluñ góor ñi bis bi ñuy wër kaaba gi ak jigéen ñi dañuy jaxasoo yàlla mii wattu géej di wattu jën wi fa nekk ba jën wu mag wa du ko lor mën naa wattu ñiy def bàkkaar ak ñi deful bàkkaar xoolam masala mu leer moom xalifa ñas firi ne bu leen fa bàyyi seeni doom bu leen fa bàyyi seen alal bu leen fa bàyyi seen dara ndax fatu ilayya bi amwaalin wa anfusikum la wax bi amwaalin wa anfusikum xalifa firiwut ne ñëw leen ak seen alal ak seen bopp de déedéet xamalan moo koy firi alquran lawla is sami'tumuhu zanna al mu'minuuna wal mu'minaatu bi anfusihim lu mu waxoon yéen jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi lu ngeen di njortu ci seen mbokk mu jigéen mii di Aïcha bi anfusihim la utiliser xalifa ne fatu ilayya bi amwaalin wa anfusikum na ngeen ñëw ak seeni mbooloo bu leen fa bàyyi dara ñu ne ko xar yeeg bëy yi mu ne Cheikhu Tidiane dana ko garder kon bis bi bu jotee képp ku ñëw na nga yëg ne xalifa la oo ci fajug aajo moo tax ziyaare bi xalifa day wax ne a ah, bëgg a ñëw taxu cee mën a ñëw xalifa lay invité nga ñëw bi amwaalin wa anfusikum li kay tafuuzu la ca teg li tafuuzu bi naylil fatxi fi sëriñ bi temps bi dafa dafa gàtt lool moo tax li ma bëgg a développé ci sa maam mënuma koo développé waaye ñu ngi lay ñaanal yàlla fan gudd wa ànd ak wér gi yaram yàlla may la nga yokku yegg ndax ki la yéene lu baax rek moo lay invité ci mbaax yonent bi dafa wax ne daalul xayri ka faaxilihi ki teg tegtale yow mokk ko jëf ñoo bokk benn at tey bu ma la doon ne la fu sëñ Cheikh dëkk nga ne ma boo jàddoo ci jaaykatu sàngara bii def nga bàkkaar bu ko tudd ndax da nga koo tegtale yonent bi bu ne daalul xayri ka faa'ilihi ñun dañ ciy dégg ne daalu charri tamit ka faa'ilihi ki tegtale ay tamit moo ki ko jëf ñoo bokk benn at waaye yiw nga ñu digal moo tax nga ñu ci ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla may fanu gudd wa am ak wér gi yaram jotaay yii dafa war di bari ndax nit ñi gën a xam mag ñi ñu am yar yi ñu defoon ci ñun mooy lan ak lan la ñu sondee woon pour am ko boobaa ñun danañ yëg ne héritage bu ñu am héritage bu riche la Baay Ñas moo wax ne fama napli yunun aw lii nuyunun wa markadin bi nuuxan ilayhim xatli am ka xabaala ñooñu ki suñ constitution bi ñuy bind nekkul na ñoom ñooñu idéke waaye nañ yëg ne kitaabullahi ak sunna si rasul ak jàngale mag ñi mooy lu ñu mën a éduquer mooy li mën a jëmbale Sénégal sa kanam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbir yëpp nag mu ngi ci mujjanteel ba gis nañ fi Cheikh Baye Niass di set ci ñaari boor di set ci Maolana Cheikh Ibrahim Baye Niass radiallahu anhu di set ci maam Khalifa Niass su ma ko tooñee na ko foo ci tànn mu ne ma ñaar yëpp tànk ndeyjoor laak bu càmmoñ ma ne ko bëgg lu baax de kon fa tabarakallahu ñu ngi koy sant du suñ xarit benn bakkan di nit ko woyof it fa ñëw na Mouhamed Ndiaye di seet ci maam Khalifa mi ngi ci jotaay bi Mouhamed Niass suma doom di doom ci Modou Mouhamed Babacar mu ngi ci jotaay bi euh, di sant nag suma xarit Cheikh Omar Niass di set ci Mawlana Cheikh Ibrahim bu ko neexee bu ko neexee tànn fa fa neex waaye xam naa it boo ko laajee moom it daan la man ci ñaari boor yëpp. Euh, ko defee it suñ mbokk yi jógee Touba ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ziyaara bi moom wax dëgg neex yàlla li fi ñëw ci mbàkke mbàkke ñëw fi ci ñi sant si ñëw fi ci notable ak i kilifa kenn xamu nu mu toll waaye lii lañ ci bëggoon dañoo bëggoon mu yaatu ba nga xam ne boo ëllëgee dañuy jël yëpp rek jëbal ko murid yi ñu ñuy waxtaanal ci maam xalifa ñu nit bu demee foofu rek ñu jëbal ñu micro yi ñu leen waxtaanal ci sañ Touba ndax wax ci sa bopp neexul nit di la waxal ci sa bopp moo dàq foofu ngay wax ci sa bopp waaw euh, Bakary Niass mi ngi ci jotaay bi moom it euh, tudd naa ko euh, fa tabaarakallaahu moom sama xarit la Cheikh Omar it mi ngi ci jotaay bi ñoo àndoon dem Maroc ziari Cheikh Tidiane mu nekk yoon bu neex Mbaye Niass di doom ci Modou Niass di sët ci maam ak maam yëpp ñëw na ci jotaay bi Babacar Niass di suma rakk mu ngi ci jotaay bi euh, fa tabaarakallaahu sëñ mbay rakkam mu ngi ci jotaay bi di Cheikh Abdou Niass daam Diop di suma xamu nu ma ko mën a waxee sax mu ngi ci jotaay bi waa moom ñaari boor yëpp la di set ci maam xalifa Niass maanaam lii rek dafa jafe dajale ñu sant Niass période bii lu jafe la ndax kenn ku ci nekk say gan nga tal taloo lu mel nii waaye suñ daj suñ leen dajalee yiw la ak barke moo tax ñu dajalee leen su ko defee may ñaan jotaay bi rek une minute parce que kii zikarkat bu mag la di zikar ci ay jàng yu mag di ànd ak akasa zamb bu ñëpp xam muy dem ci ay jotaay yàlla dogal mu ñëw fi woy na ba pare zikkar na ba pare ci gàttal waaye def ne daf daf maa ñaan te yàlla tax daf ci bëgg sànni ñaari kàddu deux minutes pour nit ñi déglu ko. Mohamed Lamine mi nga xam ni moom it euh, alim la allaama la voilà jàng na yor daara ju mag di xam di le ñëw na ci jotaay bi kon sant nañ ñëpp di gërëm ñëpp sëñ Omar bu ko defee nga wax ñaari kàddu rek ñu jox si kàddu yi ñu tëj waaye nag ñëpp. ci fu mag fa parce que lii dex la rek géej gi mooy tànt ba xalifa bi bu ñëwee kilifa yi ñëw ñun dañuy dañuy mosal ñi nga xam ni ngoon gi bëgg nañoo jël ci yiw waaye guddi gi mënuñ koo xaar buñ jëlee ngoon gi ñee jël guddi gi bu ko defee kenn ku ne yem ak sa morom waaye guddi gi ku ci am jotit it ñu ngi lay kii kilifa yow moom du la sant du ma la gërëm ndax min koy rek nga yow man nga yow la xam nga xam naa nitu dëgg rek ñutu dëgg lay ànd ak caaxaankat yi ànd ak yi waaye laa taqaf wala tahzan inna allaha maakum bul tiit bul jaaxle yàlla mi ngi ànd ak yow incha allah. jërëjëf. kaddu yi rek du yàgg. ginnaaw bi ñu nuyoo kilifa fi daje yëpp. di leen ziare. di leen ndokkeel ci bés bi. Serigne mi toog. Serigne Makhtar. mi toog. fi. kan. ku baax. di ko fonk maamam di ko gëm ñu am kóllëre ak moom bu kawe yàlla boole na. bi amee doon nañu woote lu xaw a mel nii mu bàyyi itam yëpp am na woote yëpp ñëw teew teel rek tax waaye maa ngi giñ yàlla ne Serigne Cheikh Niass mi nit ku baax la. te ku woyof la te ku am cër ci maamam te it ku bëgg la ñun nag ay wax ndax jàng rek xam waaye lu baax lu xam ci moom lu wax ko rek te kilifa gi ñaan ñu yore ndax Touba la ñu jógee. dil bi sax la ñor faranse ngir ñor bi la bés bu ñor. ak fu nu bés bi toll ndax moom moo toll noonu. boo gisee ma ni ku am ceeb ci maam la mooy man jamono yi xalifa bii naraw maam xalifa la yaakaar naa. Alaaji Ibrahima. Alaaji Ibrahima waaw. ama tëdd guddi Dakar sama néeg nii di seetaan télé ñu def ziar bi ànd ma koy seetaan waxtu trois heures quatre ay quatre cinq yaakaar naa waxtu trois heures quatre heures mu toog sol ay verre kaalawu daan ci télévision bi ànd rek maa ngi toog mu wax ni fas leen li ngeen bëgg te ñaan da ngeen ko am. Mm-hmm. heure bu jot na di wax di waxtu di waxtu ba yàgg ma daanu ci néeg bi di jooy man jooy yu métti ngir yëg ci moom yàlla ju ju wér mm-hmm. daan ne sëñ xam ma. nu may def ba siyaare ji ko ak nu may def ba gis ko ci sama xol ab diir sama jël bi daal ma daal di yeesal njàpp julli fajar daal di julli suba jamonoy dox di dox di dox ndeke booba nit lu muy bëgg na doon lu baax lu nit di bëgg na doon lu baax booba yàlla préparé na boolem ak sëtam bii toog ñu xamee pour ma ñëw ci bërëb bii tey laa fi door a tey jamonoy dox di dox di dox ba suñu boolem ak sëriñ Cheikh Niass baax mi ndax kii oto bi ma njëkk am moom ma ko jox bi ma njëkk am ci àdduna maam nga xam ne ma maa ko moom ci moom la jógee moo ma ko jox ba nu yàlla boole mu mu woo ma ne ma bis bi dama bëgg ngir ñëw dama bëgg ngir ñëw man fii ma jëm si kama daaneloon ca kàddu yu sell ya fii mooy bërëbam kon kon ku am cër ci sa ci sa maam nga yal yàlla fay yal na yàlla defal tawfeex ci daraja Seydina Muhammad fi lii nga nekk lii lii kese la noo ngi ñaan sunu borom nag bu dewee déwénee yàlla nga baax fii fépp ñëpp uyu si la ndax baraada nag du def meew du xel kafe baraada moom li muy def rek lay xel nii nga mel ak lii ngay dund kii la sama am nekkoon yéen ku joxasoo ak yéen du dem sawara billahi wa rahmatul kaabati ku joxasoo ak yéen te du ab naafiq dëgg duñ ko lakk mukk te du sonn ci adduna ndax seeni maam nag bi biñ fi nekkee bu leen neexoon dem fa fa gën a neex ci adduna ñu ne fa waaye danoo dë dëddu lépp lu neex ak lu ak lu ak saf neex ñëw ci digg àll bii di wétal seen borom ba tey jii lii taxaw lépp mën a taxaw kon yéen ko jaxasoo ak yéen te du am saytaane dub naa fekk dëggu dina am àdduna ak àllaaxira barke Cheikh Ahmadou Bamba képp ku jaxasoo ak yéen te dëggu dina dem àjjana dina am àdduna wóor na Cheikh Ahmadou Bamba ndax seen maam moo liggéey loolu te nag yemul mu ci kër gi kese kër yëpp laa wax moo dem këru diine goo xam ne diine diine fa samp te diine fa nekk hmm. bépp taari bi bu fa nekk di ziar te dëggu te jaxasewul te dëggu sellal dina am adduna alaxira kenn du ko mbugal te te du gis sawara hmm. ndax loolu mag ñi ñoo ko liggéey ngeen ngeen dese barke bi kon nag lii yàlla na yàgg si Cheikh Tidiane ki dal gis suñu ñëw giiru fi ñëw yokku yokkute la ci ñun rëccu ñu ci dara ma ànd ak monsieur Gaye mii ak Baaba Mey di suñu rakk ñoom ñëpp ñu ay jàngatu xasida suñu yéene moo doon ñëw tib takkusaan di tàgg yéen bi ba ba ñëpp daje waaye nii rek la mën a demee te nii rek nga ko bëggee kon noo ngi siyaar kilifa yëpp di siyaar borom xam-xam bu tedd bu sell bii li mu fex dara mënu koo dindi lii la mag ñi bëgg yéen lii dañ koo jëmbat ci yéen xalaa ku lexal lii day am te lii rek yàlla na continuer yàlla na ngeen gudd fan xol bu set la ñuy waxee kilifa noo ngi lay siyaar bu baax ci sa toogaay lii am na solo lool waaw Maguy euh, Maguy ne ni ngi lay nuyu bu baax sa soppeem nga kon ñun ñëpp suñu xol sedd na Cheikh Tidiane fii daal defal nga ñëpp taw feex ndax baas bii ku ko rano da nga dem àjjana barke alquran karim ndax teguma ko fenn loolu borom bés bi bés bi moom man li ma man man man fas naa dama ci ci suba ba léegi maa ngi fas ndax xam naa ne lu ma fas yàlla def ko yàlla xam na ko ci ma xëyee ba léegi maa ngi fas ndax borom bés bi ni toll sama ma toll noonu te nag nga jël engagement ki sama ne may defu sama maam kon yow raw yal na yàlla defal jàmm kàddu yooyu ñu waxoon nañ ko wax rek waaye mënuñ sax ay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa nga mhm. ñun dañoo sopp waa kër maam Khalifa macha allah damaa bëgg li may wax nag ñëpp déglu ko te dégloo ko kan man alaa jël yoo xatta mooy suma sëriñ ca busra ñiy sol mbubu haawulaay sahaabiyu ca laa bokk waaye ci dundam moo ñu wax ne góor yàlla yi ne ci réew mi ba mu daj ñu ne ah, mu ne maam xalifa Niass de laa ci gis vingt quatre heures yu ne dana gis yonantu bi ñaar fukki yoon ak juróom gis Cheikh naa Tidiane ñaar fukki yoon ak juróom loolu suma sëriñ ma ko wax. moo tax man ku bokk ci maam Khalifa Niass rek dama laa sopp. waaw sëriñ Cheikh waaye sopp naa la te yàlla tax. bu baax sopp naa la ngir jëm yàlla. taa bi na trop. imaam Assane bëgg nga ma yëkkati waaye. <laughs> Cheikh suñu diggante xayrul basar Cheikh suñu diggante xayrul basar yaa ko tali joño ay motar kuy wir da ku mu neex mu jël motar Cheikh de dawal bagaari ci Rasulallah ah Cheikh suñu diggante sama mu yónnin am na pakk am ko am lenni Cheikh yaa ko rattaxal ba nekk yoon Cheikh yaa ñu gindaleega rasool yaa astaghfirullah tijaan bankal sala tufaati téeméer wax leen ilaha illallah gëmal ne yow yaa ngi gara allo laay ah, astaghfirullah kuy tijaan bankal salaatu faati téeméer wax laa ilaha illallah gamal ne yaa ngi toog ak loolaay a sikar si àlla juma yow nay tofo sikar si àlla juma ta nay tofo sax ci bu ko ji la nay tofo yow xanga la jege ak loolaay a Siixu Omar Fuutiyu ngi nii ne day la rango ci Seex mani Tijaan ya kulluhum ni tag ji ne la Seex gindale ak Rasuulullaay man li man li ma hupp tey de sedd waxta e e si moo gaay boolo nañ e waxta si moo gaay boolo leen bi habalilaahi ma faado leen yan si Tijaan moom dewan ni ñas li yàlla bëgg ak rasul lay mane salaatullahi ma salam ala nabi moom xayril anam alihi wa sahbil kiram amin bi jaahi rasulillah waqifuna bi babikum ya sayyidi ahmad tijani barakat ibn hayara waqifuna bi babikum ya sayyidi ahmad tijani barakat ibn hayara waqifuna bi babikum ya sayyidi سيدي أحمد التجاني كوقوف عبد ضارع متملق نرجو الهجوم نداك بالفيدان أنت الوجود والسر سر الوجود أنت المملك لأولياء الأسماء أنت الولي ابن الولي ابن ولي ابن ولي الأمان فتندى تلك الولاية والعلا بجناب الختم أنبياء العدنان صلى الله عليه ما دام الورى يحتاج من فيدان النوراني بركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام في البرزخ وسلام في الحافية والسلام والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amiin jërë ngeen jëf yéen ñëpp Serigne Cheikh mu leen di sant di leen gërëm